dañ koy door kàddu yi Ousmane Sonko nga xam te ne nee na noppi na ngir nag euh, débattre ak ki nga xam mooy Ousmane Sonko ci tolluwaayu réew mi Amadou Ba tontu ne ci moom la des euh, saako yi ko bëggee ak euh, nu mu ko bëggee moom noppi na ngir waxtaan woowule dañ ci déglu Zahra Iyane mooy mandataire national bu coalition jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba ñu déglu ko moom Zahra Iyane ci jokkoom ak Kumba Sanjaan Faye ñun waa kër Amadou Ba ak Amadou Ba ci boppam nee na pare na pour wuyu si ko mi ngi koy déglu naka wax kañ la naka wax fan la naka wax nan la ndax moom Amadou Ba moom ci li mu ne jamono yi mooy seet réew mi ci yan yoon lañ ko war a teg ndax Ousmane Sonko ci boppam moo génn ne dañ doon euh, luubal falsifier chiffre yi nga xam ne moo ne ci réew mi loolu lépp mu leeral ko démb waaw moom Ousmane Sonko waxul ci yooyu naan dafa bëgg toog ak ki nga xam ne bokk na ci ñi ko formé jàngal ko moom kon ñu ngi koy déglu. jàpp ngeen ne euh, débat boobu mën nañ ko tenir avant élection législative yi. waaw kooku da ngeen koy laaj Ousmane Sonko bi nga xam ne moo ne dafay débat réew mi yëpp toog di la déglu ci nga def sa déclaration de politique général nga naan man Amadou Ba laa bëgg waxtaanal ndax gis nga ne génn na wax na ak askan bi lu ñu mën a dégg kon kay laaj leen ko moom euh, débat boobu dina am législative yi ñun bàyyee nañ ko nañu wax fan la nañu wax kañ la nañu wax nan la. te jàpp ngeen ne amul benn amul benn risque lan la ci sa leader mën a gagné débattre ak Ousmane Sonko. non yéen kay laaj bi kay da nga naan lan la ci Ousmane Sonko mën a gagné ndax moom bi ñu bi mu nekkee ci réew mi ba léegi ndax kenn mënul xam ndax mooy jëwriñ bu njëkk wala mooy jiite réew mi mais li ko yitteel rek mooy nañuy wax ci moom moom li mu bëgg nu mu ko bëggee fa mu ko bëggee a jëriñoo ci loolu la ne kon laaj leen comme moom mu debaa ak euh, président Amadou Ba lan la koy jëriñ. mu nekkoon euh, Zahra Iyane Thiam di mandataire bu coalition jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba laaj bi kon di euh, Ousmane Sonko lan lay ba njëriñ la am mu daal di débattre ak Amadou Ba ak jamono ji fi ñu tollu laaj boobu nag samp ay gëstukat ci wàllum communication jox ci seen xalaat maa ngi leen ko doon wax sànq jëm ci ci mbirum Ousmane Sonko mi woo Amadou Ba ci débat ñoom ñaar euh, ci lu soxal réew mi euh, lan moo waral ba euh, mu daal di tànn waxtu yu ni mel def ko ak lan lañ koy jural gëstu Mouhamed Alim Ba. Ousmane Sonko bëgg na débat ak Amadou Ba waaye boo xoolee bu baax diversion la daa bëgg ñu génn ci dossier yoo xamante ni xaw na ko sonnal lool la kii di Pathé Mbodj wax moom journaliste la nekk itam sociologue. bu fekkee ni dañu def Dakar Arena mu nekk fa tam fa ñëpp dem te wéeruwul ci dara ñu jóge fa Bakel ñëw li fa dal euh, Bougar ak lépp teewee ya ko ñaawlu ko laksa ëllëg sa Amadou Ba toog ànd ak teg dal ak tey wax waxu kilifa wax waxu wax borom xam-xam wax taxawaayu kilifa dafay xawal ne ko xale yi waxee ci nguur gi ñu jéem a seet naka la ñu mën a def ba euh, yàq xar kanam nekk ci diggante samedi dimanche altine jéem a euh, seet def loo xam ne ni moom la ñu xam mooy wax loo xam ne taxaw taxawaay boo xam ne ni amul mujj ni bookaay ñu

woon ak bu ñu woon a tey li li ko utaleg PSA bëriwul donc bëri na loo xamante ne tey dafa am dafa nekk ay gàllankoor ci image Ousmane Sonko population bi léegi yootu benn débat jonganteeg ab Amadou Ba dafay mel ni comme day jël ñi nga xamante ne ñooy système bi tey peut-être Amadou Ba jëmmal leen ci moom lu muy wax day xeex ak ñoom publiquement i débat fësal système boobu yëpp lu mu def Sénégal ci moom lu mu wax léegi loolu mooy intérêt wu débat boobu ak Amadou Ba feesalaat bi nga xamante ne dafa amone programme am vision di dugg dugg ci ay débat contradictoire di waxtaan di convaincre. waye nak ban intérêt le, Amadou Ba am di débattre ak Ousmane Sonko ba ñu ko ci docteur Moussa Diop intérêt bi bariwul. c'est-à-dire que bu fekkee da ngay débat acteur politique ci langue bi bëri nañ débat boobu d'ailleurs mën nañ ko organiser de manière publique waaye jël kenn tànn ko ne yow laay waxal am na leneen lu muy ah dafa mel ni comme rek. nga ngay dem guerre nga xam ne kii mën nga kaa gaañ nga woo ko pour fësal foofu sa doole waaye am na ñeneen ñoo xamante ne war ngaa mën a jonganteeg ñoom nga jonjonteeg ñoom ngeen xool population bi xool. mu na ay médias yoo xamante ni nee nañ dañoo bëgg organiser débat boobule waaye bu fekkee ni day am ban date lay doon. gàllankoor diaspora bi asalaamaaleykum Serigne Omar Fall waaw Serigne Omar Fall di ku yàlla baaxal mu géej lool ci wàllu ak ñaan moo xam kurus ba ci wàllu bind te joxe ay sangat yu yéeme lool moom Serigne Omar Fall yéen bëgg sixaara jokkool ak Serigne Omar Fall yéen bëgg cangat ci wàllu ubbeeku ak muslaay ba ci protection bayri ak cat ba ci yéeme am faru rab jigéen bu bëgg borom kër mu jafe ko lool ba ci góor gi bëgg soxna mu te ko lool gaaw leen seeti Serigne Omar ba ci ki bëgg tukki am jafe-jafe ba ci yéen li jënti wàllum këyit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 génn ci xat yi ngeen ne ak seeni njàqare seeti leen ko gaaw nattal seen dund téléphone am 78 566 35 79 ma bamtuwaat numéro Serigne Omar Fall 78 566 35 79 ak Serigne Omar Fall seeni jaaxle jeex na seeti leen ko gaaw cangat ci wàllu ubbeeku muslaay ak protection bay rek cat ba ci yow mi am faru rab jigéen bu bëgg borom kër mu jafe gaawal seeti Serigne Omar Fall góor bu bëgg soxna tufum làmb mu dëgër gaawal seeti Serigne Omar